salaamaaleykum salaamaaleykum Bathima Samb kon nuyoo leen kon ci nuyoo bu gën a sell rek fi mu leen ko daan nuyoo ñu kon ah, ci ah, Touba Mbacké nag ah, di dëkk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nga gis kon ñu nekk nag kon ci 17 safar di waajal màggal gi suba kon rek lépp rek ku tedd ki daal di woo taalibe rek daal nañu ñëw kon ngir sant la ko suñu borom moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul muy yem ak suba kon di 18 safar ñu nekk nag fii kon ci gaar bu ndaw ci gaar bu ndaw ci Touba rek daal di ñëw kon fas yéene ànd ak mbokk taalibe ak mbokk jullit yi ci màggalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gi mu woote ngir ñu sant la ko suñu borom te kon mi ngi safar fii ci Touba Mbacké ak benn euh, TV incha allah ñu fa seen ànd ak yéen kon di leen fi wan lépp lu fi am rek euh, mbokk yaa ngi jege nag fu nekk nag rek nga ñëw ngir barkeelu kon euh, ci bis bu tedd bi di màggalu 18 safar gi nag muy yem kon suba incha allah le octobre tey nag ñu nekk kon ci le 5 octobre di 17 safar kon ñu nekk fii ci gare bu ndaw nag tàmbalee fi kon jël fi image rek daal leen koy wan xamal leen leen kon ñu ngi ci wàccaay magal 18 safar bi 2020 Eh, kon nag di eh, cant gi si Ahmadu Bamba Xaadim Rasul woote ngir ñu sant la ko suñu borom kon eh, buur bu tedd bi di ñaan nag képp ku fi ñëw rek yàlla na suñu borom faj say mbir zaaroonu baatina